sunu mbokk amateurs yi ñu ngi fii dimanche 13 mars 2023 ñu ngi fii Grand Yoff Grand Yoff nag fii la terrain gaal gi nekk bésu kan la Manga 2 le roi des arènes moo daan Siteu Fathior moo daan Daouda Fall moo daan Mor nger moo daan Birame Ndiaye moom moo daan Mor Fadam kooku moom may kan moom may Manga 2 le roi des arènes kon fan la fan la perte roi des arènes bi mooy si Mohamed Ndao Tyson tey moom moo fi teg monsieur un million tuddee drapeau bi Ablaye le mystique le mystique tuddee drapo bi kan Ablaye Balde le mystique le mystique teg fi un million boo xam ne pour bëggalee ko amateurs yi ànd ak kan góor gi le grand monteur kon at ñu dugg si biir ñu dem am na ambiance am na fecc am na way at ñu dem. tànn kii moom may paalo. nuyu di seen wàccuwaay di leen wax ne nag lii mooy cosaan waaye lii mooy Sénégal waaye yaakaar naa ne réew bu amul jàmm amul solidarité amul culture réew ma mu dox te président Senghor mi nga xam ne mooy suñu maam da doon wax réew avant tout c'est la culture culture nag mooy dajaleeg mooy indi jàmm mooy indi salam mooy indi xam-xam mooy indi jang mooy indi jubo waaye mooy indi lépp li nga xam ne moo tax réew dox merci. waaw kon tey mu teg fi mise un million. tuddee drapeau bu Ablaye Ali Malal Diallo léegi nag looy wax ci la ma ci bug a wax mooy tey daa doon drapeau boo xam ne daa symboliser askanu séeréer ak Haalpulaar wane ne Sénégal jàmm rek a fi ne te jàmm rek a fi xaj muy ñaari ethnie yoo xam ne seen diggante séeréer ak joola séeréer ak tukulóor joola bokk doon seen mbokk kon lépp Sénégal la kon Sénégal jàmm rek moo fi xaj. un million bi ma nga doo teg de koo teg ngir tegal mbëri waaye nag li ci mooy honneur bi nga xam ne mooy ki nga xam ne mooy Ali mi nga xam ne Abdoulaye Ali Malal Diallo mu tuddee ko drapeau woo Haalpulaar yëpp ñu ñëw fii tey mu war doon bés boo xam ne bés bu mag lay doon bésu symbolique waaye ñu am contentement bu mag ci yéen ndax li ngeen di rafet na am na solo. des an arbitre yi dimanche mars 2023 ñu ngi fii ci Adrien Senghor bésu Manga 2 la teg fi mise 1 million pour bëggal amateur yi ndeysaan ndeysaan Birame ak Mbaye Diouf Birame à gauche Mbaye Diouf à droite ndeysaan fee X9 ak L ñoo fa nekk jeex Cheikh Cissé ñoom ñaar ñu ngi lewtoo fee si 9 la ak A ndeysaan ñoom jàppante nañ fii mbay Diouf ak Biram la ñoom ñaar ñi ngi lewtoo diggante mbay Diouf ak Biram diggante Mbaye Diouf ak Biram Cheikh Sidi Mokhtar yàlla na fi yàgg te wér képp kii bëggee Sénégal rek di baa mu lay bëggee maa ngi sant équipe bi yëpp di leen gërëm ñoom mëngoo ndeysaan ñoom Kandé ndeysaan ñoom madame Badiane équipe technicien bi yëpp ak góor gi c'est le maire le grand monteur tey ñu ngi fii si Adrien Senghor diggante Mbaye Diouf ak ñoom ñaar jàppante nañ eh daan na ko jëlee ah action am na ah wër na ko ndomb mbéy na ko ndomb ba tey action amul de ndeysaan wër na ko ndomb ba tey action amul ay bii combat biram wër na ko ndomb wër ndomb taxul nga daan ko de ba tey trois appui la def ba tey trois appui la def ba tey def da daan da kay daan ndeysaan ndeysaan bay ju bañ na non da daan biram daan na ko jël ba amul benn werante amul problème non c'est le meilleur doole doxul jàmm arbitre bi mu ngi diggante X9 ak L ndeysaan lu règlement bi wax rek la leen di wax nee na lan pare ñu ne waaw kon boog L am na benn avertissement kon avantage X9 la arbitre bi soufflé na combat bi ñoom ñaar ñëpp ñu ngay léemu X9 moom moo ngemboo ngemb bu weex bi ras L à gauche ndeysaan ñoom ñaar ñu ngi léewtoo ndeysaan ñoom ñaar ñu ngi lewtoo diggante X9 ak L ndeysaan arbitre bàyyi la ñu bëre du combat bu ñuy saax saaxe combat technique la X9 jël na ko L jël na ko ñoom ñaar jàppante nañ diggante X9 ak L ndeysaan ndeysaan ñoom ñaar ñi ngi lewtoo ñoom ñaar ñi ngi lewtoo ndeysaan el jël na ko ek si neuf bañ na ndeysaan écurie la nekk ek si neuf moom Géejawaay la bokk écurie Balla Gaye moom moo ngemboo ngemb bu weex bi ndeysaan ñoom ñaar jàppante nañ ñoom ñaar jàppante nañ ñoom ñaar jàppante nañ si neuf el ah arbitre bi àtt na leen laa ilaaha illallaah wër ko ndomb el wër na ko ndomb laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah diggante el ak si neuf xale bi bëre rek lay def wër ndomb taxul nga daan ko de walal ma lii rek kono ñee egsi naat na fi la ilaha xale bi bëre rek lay def écrit Balla Gaye la bokk a arbitre bi sifflé na ndeysaan jox na egsi victoire xoolal mu lii rek waxoon naa la wër ndomb taxul nga daan ko finalement egsi neuf daan na ko jël li ba amul benn werante moom mooy père Babou keroog moom mooy indi saakees mu daan rek rek jël bu rëy bu amul benn werante waaw tey nag sa doomu ndey mi Manga 2 teg fi million loo ñuy wax tuuti rek. waaw xanaa kontaan rek parce que Manga 2 dañu ànd ca ba muy bëree petit combat ba léegi ba muy jógee ndakaar mu ñëw fekk may supporter séeréer ñu ànd ba léegi tàggoolu ko wuñu te dee rek moo ñuy tàggale ñi mu tuddee làmb ji ñooñ ñooy man maay ñoom kon dafa mel ne bis bi tey lépp ci man la daanu. ñu ne saa Bombardier Tapha Tine Modou Lo mais yooyu yooyu jarul lim Sa Thiès mbër mu jógewul géejawaay rek man bu ñu bu ñu juboo ñu bëre mais dañu nekk bomba ci Bombardier daal lan lañ ko bëgg a dugal yow looy wax non non déggoo li ma la wax ku mbër mu dëkk géejawaay bu ñëwee ñu bëre ah. waaw waaw kii nag moom mooy père Babou waaw dégg lu wax kii nag mooy suñu pap nga xam ne moo yore organisation ak waaw tey loo ñuy wax ci bés bi rek ah mbiru manga la xam nga mbiru manga moom du tuuti yëfam du tuuti daf koy def ba mu saf parce que manga manga ñëpp la muy séeréer muy manga daal manga Sénégal lépp la lépp fu ñu tudd làmb mu ngi fa wàññiwu ci dara lu lu ko yokkat lay ah, def tey mu teg un million pour bëggal amateur hmm. effectivement fii sax dafa xat fii dañ ko ne woon bu mu fi tegati dañ ko ne bu bu mu fi tegate nay tegee ji làmb ji fële mais xam nga fii xam naa rek daf ko loolu moo tax mu tegee si fii mais je sais très bien que soo demee ci xolam fii sérieusement xat na xat na dëgg la pour pour man dama defe noonu sax terrain gaal gi la jëm loolu moom ma jaaxal tey mu ñëw adresse ah xanaa fii fii fii da la commencé waaw Iba Mar ñu ngi koy ubbi ah comme Iba Mar ñu ngi koy waaju waaw waaw léegi mu pare waaw mun naa mu teg fa cinq millions wala six millions gën naa koy foog nag parce que moom affaire am du tuut moom nii rek ana waa rek ci kaw ci kaw ci kanam kii nag moom ci kër gi laa bokk yàgg naa ci ci kër gi laa bokk kii nag ñoom ñooy yore responsable Adrien Senghor loolu am na képp ku fi jël datam ci ñoom ngay ñëw loolu am na waaw tey Manga de teg na fi un million waaw waaw Manga dafa yàgg ci lii barewul rek bàyyi toog defe na ñu ko doon defal moom lay defal ay jarbaatam ak ay doomam li mu def nii tukloor ak séeréer yi xale yi nañu jàng ci lii ñu xam ne caaxaan xajul suñu diggante lii jàmm du ko gën toogis gis nga fii xoolal nu ñu tooge kii président baa ngi nii mooy moom mooy président ñun du tekki bi ak bore bi njëriñ bi mu jëriñ nit ñi moo ñu fi bàyyi passé nañu ba am na ñi nga xam ne bu njëkk tabax na def na jàkka tabax na école gas na teen loolu mooñu ñu fi bàyyi ma di leen sant nag li ñu bëggoon am nañ ko mooy ni ñu def ci door bi ngeen defal ñu ko ci li simple bi waxoon nga ma li yàgg na. naa la ko mën la. pare naa pour accompagner leen. si biir sans frappe bi ba saison bi di tëj. waaw mu ne la yàlla dafa def ni. Cheikh Sidi Makhtar dafa ma dégg Sénégal. Sénégal voilà léegi nag looy wax sama góor gi. mooy grand monteur. grand kii jënd la. waaw jëndi monteur yi mooy kii. lépp luy leer lépp luy moom moo koy segi ba mu set moon ko ak sànni. yàlla neen jàppale kontaan naa ci yéen. waaw looy waaw looy wax Sénégal. Sénégal sant yàlla rek. di leen ñaanal jàmm. fu ngeen bugg a jëm yàlla ngeen leen yefal jàmm kontaan naa ci yéen nga ne ku leen sant lii maa ngi ñaanal mu am jàmm ngeen yàgg koo def lu ngeen ci bugg yàlla defal leen ko merci vice président waaw yo nanga fo radio fe lam taxam me ɓeer na adressé ngor yaga xam dong ten ka andoona yee mayu ten andano ten xaye waagino waag o lay su ma ko waxee nag ñuy nekkee wolof wax wolof moo tax ñu wax wolof. muy lu wér. mais waxoon séeréer dina leer. loolu am na. fi ma jaar arène adressé Senghor. waaw. 1971. ba léegi. la ñu commencé arène bi. ngay ngay jóg di daanu rek. di jog di daanu. ki ñuy wax Mbaye Senghor. yàlla ko yàlla yërëm. amiin yaa rabbi woo ñu ne kaay ñu organiser. waaw ñoo yoroon làmb ji. waaw wax ñu ne jël leen làmb ji. yéen séeréer yi yëpp parce que cosaanu cosaanu làmb séeréer yi la. loolu am na. moo tax Mbaye Sène moo jël làmb ji ànd ak Boubacar Sarr. loolu am na ak Mansour Sarr. sama kanam ak ñun ñi. loolu am bi yàlla defee mbay ñibbi. ñu fal Boubacar Sarr. loolu am na. kooka yërmën moom itam. daan tëkkat fu ma yàlla na yàlla xare àjjana ko yàlla xare àjjana amiin yaa rabal ñu di daanu di jóg di daanu di jóg ba Mbagnick Ndiaye ñëw. ministre des sports booba Abdoulaye Matar moo nekkoon ministre des sports loolu am na. mu nañu may ñu bind ñu ñu miir lamb ji. loolu am na mooy miir bu njëkk ba ñu dem a dem a dem ba su chef ndong ñëw. waaw nee ministre la doon la nekkoon. def fi hangar bu mag fii. bi mu jógee. waaw Khalifa Sall ñëw. loolu am na. tit bi bii nga gis ni xaalifa moko ko yal na ko yàlla defal jàmm. def fi xaalis bu bari. loolo am na te di ko sant bu baax. di ko gërëm Momadou. waaw fu ñu jaar ci làmb ji bu ko waxee fii ak suba. fii ñu fanaan loolu am na xam naa ci. mën na yéemaat fii allah alhamdulilah. ci des. waaw mottale ko. yàlla na la fi yàlla bàyyi defal la jàmm. ndeysaan solol doon ko grand bu rafet solol doon ko ku ko jara solol Ablaye Ali Malal moo décoré le roi des Manga yaram daw yaram daw na ndeysaan yaram daw na yaram lii mooy Sénégal Papa Line président nuyu euh, am mbégte lool lii mooy wane ne mooy Sénégal kon Ablaye lu mu def ak soonam ak ñëpp ñu nekk alpulaar yëpp kenn mënatu ko dab séeréer yi dinañu fay jërëjëf Ablaye lii nag ñu ñoo la ko jox maintenant nga décoration bi li nu sargalee le roi des arènes Manga 2 teraanga yi du ko jox. Euh, mbaal bi day symboliser loo xam ne ñun ay béykat ay béykat ñu ay nappkat la ñu li la mbaale pour jàpp te ñu ko fii ñu dox ko Ablaye pour suba ñu. loo xam ne suñu maam yi su bëgg a seey suñ la ñaanalee. sëriñ la leen ko doon jox sa jabar teggi ko nga xool ko teggi ko nga xool ko day aar soxna si day aar jaboot bi su amee problème nga xool jaajëf jaajëf waaw maa ngi lay ñu lay fay ñu ngi lay fay. maa ngi tey million looy wax. waa ñu ngi kontaan bu baax a baax waa di ànd di kontaan nag ci ànd bi ñu àndax nag sunu directeur muy Ali Manal Diallo di wax ne culture lii rek moom moo am solo muy pël muy séeréer muy joola muy njaago muy bambara muy lébu ñun ñëpp ñoo bokk ndayax baay bés bi rafet na waaw mu ngi tey sama waa jaajëf jaajëf ñu ngi waaj a soufflé diggante Djuram Sarr ak Tidiane ñoom ñaar ñu ngi lewtoo ñoom ñaar jàppante nañ diggante Djuram Sarr ak Tidiane dëpp na ko sol bu bañ ñoom ñaar jàppante nañ Djuram Sarr ak Tidiane sant yàlla bu baax a baax ñu sant bu baax parce que yàlla maye quoi su yàlla maye ñu jël su yàlla maye ñu jël saa yu yàlla maye ñu jël waaw di kontaan si yéen rek di kontaan si yow sama grand tamit billaahi di la bëgg bu baax a baax si grand bi bëgg naa la lu bëree bëri bëgg naa la lu bëree bëri waa dimanche le 19 mars am na 3 millions Iba Mar Diop waaw nooy waxaat si loolu waaw ñu ngi sant ñun war nañu compétir rek dañu compétir saa yu lamb amee dañu dem compétir yi muy fii mu si àll bi yëpp dañu compétir rek. kon yow foo jigéen Fissel nga jigéen wala Fatick. man Gapaax laa dëkk Gapaax. ah foofu nga gis. Gapaax Nioro Gapaax dafa doon wax ne Nioro laa dëkk Gapaax Gapaax. Gapaax ah, ginnaaw Ndofane la gëm fa laa dëkk. les sant ñoom ñaar jàppante nañu. ndeysaan 14 victoire benn défaite la am kooku nag moom mooy Reug Reug laa ilaaha illallaah X9 jël na ko ah daan na ko jël li amul benn werante ndeysaan c'est le maire c'est le maire c'est le maire c'est moo arbitré woon saa kees Reug Reug ndeysaan moom mooy arbitre diggante Moussa ak ñoom ñaar jàppante nañ diggante Pape ak Moussa huitième de finale poids léger yi diggante Pape ak Moussa ndeysaan jël na ko jël na ko si dóor ko suuf laa ilaaha illallaah daan na ko jël ba benn werante ndeysaan daan na ko gën a meer waaw waaw bu Joal ak Tidiane bu Fissel ndeysaan góosu bu sowal jël na ko Tidiane bañ na ñoom ñaar jàppante nañ laa ilaaha da Tidiane daan na Tidiane jël ba amul benn werante waaw waaw ndeysaan bu sowal a ngoog la neexee de waaw Birame Sarr arbitre bàyyi la ñu bëre diggante Birame Sarr Birame Sarr Ange Jacob ñaar ñi ngi lewtoo ndey Fadou Diba bëggee naa leen di leen ziar ay boy yi am fit ñoo fa nekk nangoo liggéey tey Asiko famille waa groupe ETF maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen fi Diba day Birame Sarr As Jacob ñoom ñaar ñu ngi lewtoo la waat la Issou Neuf daan na ko jël ab am Issou Neuf daan na ko jël ba amul benn werante c'est le maire booy bii du nit sa Birame Sarr ak Jacob ñoom ñaar ñu ngi lewtoo ne teg ku jum ak na wat combat bi nee ku nekk mu doppaleeg une minute day na juróom ñaari avertissement daan na ko 4 appuis waaw ah, daan na ko ndeysaan juróom saa daan na sa kap jël ba amul benn weren 4 appuis bu leer nañ waaw ki ma may góosa bu sowal ndeysaan yow bi mooy sa ñaata combat bi mooy sama troisième combat ah. waaw mais dama gis yow ek ban écurie nga bokk man Joal laa dëkk ah, écurie am Lamine Senghor dama defe ne yow écurie Manga 2 nga bokk non non laa dëkk Joal ah si wàll nga waaw waaw. mais nga daan tey ma gis la nga ñëw daan daan la jël la boo xam ne mu gëj naa ko gis sa arène. waaw lamb la rek ñun ay xale lañ Joal lañ dëkk su dëkk lamb dëkk ay ñoom góor gi Senghor ñoo suñu mag ay ñoom Mbagnick ay ñoom Ablaye Ndiaye kon ñun luñ def si lamb war nañ koo mën a def quoi. yow ñun waa Joal lañ dañoo ñëwoon fii pour xool c'est la première fois ñu ñëw fii nii c'est la première fois ñu ñëw fii c'est la ñu ñëw Dakar gars yi ko nangoo bindu tànk ndax dañ naan poids am la te xale bu ndaw la 1999 la judd gars yi ko nangoo ñëw mu bëre si fii nii gars ñu dañuy xool ñu booy booy ñu bëre mais dañuy ñëw fii ñuy wax affaire poids te Joal dañoo xool ñu jàppale booy ñu ñëw fii nii parce que instant ñoom prise crise mbër Joal dañoo am crise mbër. si poids léger yi nga bind wala poids lourd. poids lourd ah poids lourd. waaw waaw. bu Joal ak X9. arbitre bi soufflé na dimanche 13 mars 2023 mi ngi fii si quart de finale poids lourd yi diggante X9 ak gauche bu Joal. X9 à droite gauche bu Joal à droite à gauche. Ghost bu Joal X9 ndeysaan moom écrit Mamadou Ndiaye Ablaye Ndiaye la bokk X9 dëkk Guédiawaye bokk écrit Balla Gaye Ghost bu Joal X9 diggante Gosou bu Joal X9 ñoom ñaar ñu ngi lewtoo diggante X9 ak Gosou bu Joal X9 bi bi ngi wax ak ñoom arbitre bi arrêté na ko ndeysaan dafa dafa gaañu X9 dafa ndorox dafa gaañu rox dafa gaañu ñu ngi koy xoolaat ndax mën na bëre wala mënul bëre Cheikh Sidi Mokhtar yàlla na fu yàgg te waaw waaw waaw waaw moom mooy Adama Diouf ndeysaan fecc rek lay def X9 mi ngi nii dafa naa moom dafa ndox moom dafa gaañu xaw ndax dina ko eggali wala du ko eggali peut combat ñoom ñaar ñu ngi lewtoo le juróom Sarr Mbaye Diagne arbitre bi àtt na leen góosa bu Joal X9 laa ilaaha illallaah X9 daan na ko jël ba amul benn werante non boy bi c'est le maire écrit Balla la nekk c'est ñu ngi lewtoo ñaar jàppante nañ ñaar jàppante jàpp kaw tey Malick Ngaw ndeysaan Goussou bu Joal nee na c'est la première fois mu ñëw Dakar bokk écurie Ablaye Ndiaye Mamoudou Ndiaye doomu tey nag dafa ndurox di sa bës ñoom ñaar jàppante nañ Anta Mbaye Diagne Jérôme Sarr bii combat la daan na ko ba amul benn werante ndeysaan Mbaye Diagne daan na ko jëli ba amul benn werante amul benn problème a Birame maa lay nuyu di la ziar. waaw waaw tey nga ñëw ba looy wax. waaw sant yàlla bu baax sant yàlla la première fois nga ñëw fi wala. waaw la première fois nga ñëw. waaw damay door a door a. foo jugee. Suudaan Suudaan. Suudaan Suudaan Thielem. waaw waaw est-ce que ngay tasante ak waaw équipe équipe Balla Gaye la bokk. waaw équipe bu mag la baax man équipe usine doole laa nekk. Ah, waaw waaw waaw waaw la nekk géej waay. waaw waaw léegi looy wax. sant bu baax sant yàlla bu ma loolu lay ñaan yàlla kon lay wax say supporter sant bu baax waa Soudiane ak waa Diop yor waa village yëpp comitéral bépp waaw ak waa Kër Ndiaye lu ma nekk ay ñoom usine doole ak sama nijaay yëpp sante yàlla bu baax waaw wax si séeréer mais gid ma fogole séeréer fop tangeda tangeda naam jang victoire fe a refa ka namal kam yasam roga ci'amo ten um jangin na ik sinof gid ma Soudiane ndeta na fop jaajëf Samb tey ngeen tasante ak Biram Biram. Biram waaw champion la waaw. di ñaan yàlla rek yàlla may ñu ndam quoi ci kawam quoi. lay wax say waaw maa ngi bëgg ñëpp képp kuy bëgg X9 maa lay bëgg di la safoo di la ndamoo quoi. waaw yàlla na may ndam merci. waaw dimanche 13 mars 2023 ñu ngi fii si Adrien Senghor final pois lourd bi diggante Biram ak X9. ndeysaan X9 nee na écurie Walfadjri la bokk. Birane c'est la première fois mu jigee Fatick ñëw fii ndeysaan xam nga mbëri ñoom dañuy tudd seen fóonoo moom may Mbaye Diagne boo demee fee ñu la Mbaye Diagne mais nag turam dëgg-dëgg Birane la ndeysaan ñoom ñaar ñi ngi lewtoo X9 jël na ko Birane bañ na ndeysaan ngi fii ci Adrien Senghor te bilan am buur maa ngi lay bëggee di leen ziar mëngoon ne Kande ak équipe yëpp maa ngi leen bëggee di leen ziar képp kuy bëggee Sénégal rek Diba mu ngi bëggee ngay sant ñi jàppale Diba yëpp Diba mu ngi bëggee techniciens yi fa nekk yi fa nekk yi fa ñëpp maa ngi leen di bëggee di leen siyaar di wax réew mi yàlla na fi yàgg te wér Birane jël na ko jël na ko X9 bañ na ndeysaan Birane jël na ko X9 bañ na ndeysaan ndam li Fatick la jëm wala Guédiawaye si kanam dina leer ñoom ñaar jàppante nañ 19 mu à gauche ngembo ngemb bu weex bi Birane droite ngemba ngemb logos bi ñoom ñaar jàppante nañ ku nekk am na ngemb diggante Birane ak X9 sama chauffeur bi Saalum fàttewu ma la Diouf tam fàttewu ma la ndeysaan ñoom ñaar jàppante nañ cey góor gi la grand monteur si jàpp na jëm na ko cabaxal mu bañ ndeysaan Birane jàpp na ndengeñ continuer nii Birane mooy mooy jël ndam bi ci kaw si neuf ndeysaan laa ilaaha illallaah sànni na ko mbot si neuf bañ arbitre bi àttewaat na leen ñoom ñaar e joxaat na si joxaat na si joxaat na X9 deuxième avertissement x am na ñaari avertissement ñoom ñaar ñu ngi lewtoo tey madame Badiane a ira dina baax bi day diggante Birane ak x Bégué Mangone le maire ñoom ñaar jàppante na diggante si neuf ak Birane ñoom ñaar ñëpp am nañ ngem ñoom na ko bañ ndeysaan diggante Birane ak si neuf def ak Birane dimanche 13 mars 2023 ñu si Adrien Senghor Langue 2 teg fi 1 million ak nag que le meilleur gagne diggante Birane Birane ak si neuf naa leen bu jeexee nii Birane mooy jël ndam li si kaw si neuf ñaar jàppante nañu Birane fu mu téye moo baax si am na ngem diggante Birane ak Fifty laa ilaaha illallaah ah dafa ndox Birane li ñuy jox de Birane moo mujjee jël ndam li ci Fifty Neuf trois avertissement la am moo tax ñu bujjee jël ndam di jox ko Birane c'est le meilleur yàlla jël ndam li looy wax. sant yàlla bu baax sant yàlla bu baax waaw. tit ma supporter fop foofe yoontuma anda tooke mi fop roog jegu yasam yasam tamalam o xaaga yit yasam jafagar ta jeg victoire um i wax séeréer sereer gid ma suƴan weeri me maak comité général jila Diofior ten i njegu ten i ngaaƴooɗa yaag ten o ñaananaxam o yam jilas fop ga am jilas a meeke to wa Ndiaylo fop ref ma a yaatalaxam moom bo waago saɗ bo me me gidma nuun nuun télé fe yasam télé fe a yoku ba a yoku a yoku yoku yoku ko nu mbugna ten roog a cina nuun moom mooy Birame moom moo mujj a jël 1 ak nag yow lay kontaan rek kii mooy suñu baaba amul lu mu deful ci lambu la rek am lambu bu mu demoon ñëpp na bu muy boore mbapat ba nii muy dem nii ci longatu mbapat bu dem na koy jël di samp yow la sant yàlla bu baax ñoo ngi sant yàlla ah lay kontaan bilay na trop mais yàlla baax na quoi waaw yow lay ah? lay wax ci kii non kontaan ci bi rek di ko ñaanal yàlla na ko du mu gën a loolu laa ko yàlla sama xarit la sama lépp la. kontaan si moom rek kii moom sama lépp la sama mboor sama lépp la kontaan si moom rek na gën a ko yokk entraînement rek jàmbaar na ko na ko yokk entraînement rek day baax incha allah day baax incha allah yàlla daal lépp day baax incha allah na ko entraînement góorgóorlu rek te ndax mboor mun na lépp yàlla baax daal. waaw ne ko champion la rek du ko ne ko na ko jik quoi compétir la rek tey da ngay ñëw nga jël suba xama suñu borom xañ la quoi mais bu la xañee da ngay sant yàlla quoi comme da nga daan na ñu ñàkk def nañ def ba final kon dañuy sant yàlla rek góorgóorlu liggéeyaat rek ñëwaat waaw moom may X9 dama nga jël sa reliquat sant yàlla rek sant yàlla rek moom champion la quoi gën naa daa gën a moo tax mu demee nii daa gëj a entraîné moo tax mu demee nii quoi ba gëj a entraîné. waaw waaw gërëm leen sant leen quoi. X9 champion la sincèrement parler lamb bi neex na gërëm nañ leen sant nañ leen xam na ba beneen yoon rek dinañ defaat lu raw lii incha allah. ndeysaan suñu mbokk amateurs yi dimanche 13 mars 2023 ñu ngi woon fii si Grand Yoff Grand Yoff nag fii la terrain gaal gi dëkk ah maa ngi tegoon fi million ak benn nag. de ku ko mujjee jël moom mooy Birame moom moom njee daan X9 bu écrit wal fajiri jël bi amul benn werante drapeau bi kenn nañ ko tuddee woon muy Ablaye Balde ndeysaan képp kiy bëggee Sénégal rek Diba mu ngi lay bëggee maa ngi nuyu équipe technique bi yëpp ay Mangone ay ñoom Kande ay madame Badiane ak sama góor gi le grand monteur grand caméraman ñoom béy di maa ngi nuyee ñëpp wax dëgg yàlla wa salaam kon boog ba beneen yoon Diba moo leen fi teew leen képp kiy bëggee sud bi rek Diba mu ngi lay Fatima Tall yàlla fi yàgg te wér lii ñu la jox ni yàlla na oyof sa yow kan ma la fi teeloon muy diba ànd ak sama caméraman góor gi kon boog ba beneen yoon wasalaam kon ba beneen yoon wasalaam